ñun suñu kër dañu jàngal man man waruma faussé bàcc jakarta warul jër ndaare ndax askan wu mu bokk kenn jëlu fa ndaare polygame loolu la def ci man ñoom waruñu maa fay de parce que wax dëgg yàlla amee luñ ma dara mais man dama dama leen a war a fayaat man parce que danoo changé sama sama sama sama vie ba ci Jakarta mi ngi tudd Mara Seck dëkk Sénégal Thiès Kër Maam El yaayam tudd Khady Dieng bokk ci famille El Hadj Ndiouga Dieng papam tudd El Hadj Sam Seck bokk ci tamit famille El Hadj Babacar bu ñoom Baye Cheikh Seck euh, ba ci nekk benn artiste boo xamante ni euh, mën naa wax ni polyvalent la ndax bàcc yemul ci théâtre kase boo xoolee bàcc Jakarta def na publicité orange la vie jamono c'est pour toi et pour moi boobu maa ko def yàlla def aussi may ànd ak euh, samay euh, samay xarit samay frère ñoom ni ko ñoom Amdi Mignon ñoom Pabas Jaxate ndeysaan di def one man show loolu Bàcc Jakarta def na ko pendant sept ans ba pare Bàcc Jakarta day woy ndax Bàcc Jakarta day woy ay mariage Bàcc Jakarta dañ koy woo muy way ay ngénte kon donc mën naa ni Bàcc Jakarta euh, c'est un polyvalent. au fait est-ce que sax yow man amoon naa problème Euh, Ndeye euh, doo ma envoyé foofu benn 5000 ma dépense ci tey dama xaw a sant Guèye de. Bac Jakarta mën naa wax ni en face am yëpp daf ko def ci diggante Bargny ak dakaar ndax man ku ni Bargny sa xel dina dem ci El Hadj Ndiouga Dieng El Hadj boobu dafa nekk suma maam kon donc bàcc mën naa wax ni ñaari côté famille côté papaam ak côté yaayam yëpp ay artistes lañu kooku mooy Bac Jakarta. man mën naa wax ni euh, art dafa nekk suma deret ndax ñu suñu kër muus yi sax dañuy théâtre ah. bu heure añ jotee wala heure reer jot wala heure yu kenn xamul da ngay gis muus yi yor seen kudd di def seen i affaire comprendre li ma mu leer na nit ñi ay artistes lañu et ci biir kër gi lañ dëkk voilà euh, mënu ma bañ aar parce que dafa bokk ci man te lu bokk ci yow rek nekk ci yow noonu la ma aar dikkeel koo koy bàyyi ci Jakarta. te xam nga man góor gu ñi may dépense la tu vois euh, mais yëg nga ni su temps yi ak suma Jakarta yi am naa problème trop tu vois euh, Ndeye Marème laa doon woote Saint-Louis. role bu métti laa joué nag rôle bu méttee méttee métti laa joué parce que dama bokk ci famille bu baax Alaaji Babacar mooy suma maam Alaaji Njuga mooy suma maam man dama war a jàngale. te pare na jouer n'importe quel rôle bu ñu ma jox ma jouer ko parce que man éducateur la kon donc man rôle bi amul metti woon na ci man mais après garaawul la ah, parce que dama ne artiste laa dama ko war a jouer parce que yombul yombul ah mais comme ah dafa nekk suma deret ba pare damaa sob loolu nag loolu moo ma gën a poussé ñu jox ma rôle bi ma jouer ko. yàlla def ñu bëgg ma yaakaar naa ni sénégalais yi bëgg nañ ma de voilà noonu la bàcc ñëwee waaye euh, polygame lu mu changé suma dund mën naa wax ni bari na ndax su ma la yàlla polygame daf ma changé li may wax dama koy may euh, képp kuy jeune ndax boo nekkee jeune bon dina yomb lool baaxit dina yomb lool yow yaa choisir amul kenn ku nekk jeune te amoo te jaaroo ci ay ay ay ay euh, ay fakkasal suñu borom bi mooy defee noonu waaye yàlla dafa def mën damaa dugg polygame changé man polygame man maa ko war a fay ñoom waruñu maa fay de parce que wax dëgg yàlla amee luñ ma dara mais man damaa dama leen a war a fayaat man parce que dañoo changé sama sama sama sama vie. alhamdulilah alhamdulilah. alhamdulilah polygame dafa changé def naa lu ne ah, dugg naa fu nekk joué naa lu nekk mais rôle bi moo joué ci polygame dafa nekk rôle boo xamante ni euh, man dama ci jóge changé pour gàttal wax ji xëy na ñi ma doon seetaan maa ngi leen doon jox de plus mais boobu xamuñu man li may dund. am ko te xam nga ko ñàkk ko te xam ko moo ko gën waaye baa xam nga ni bu du woon ñi tilimal ñuy bale kenn fayeku ndax sa yu matt bu duggee ci li ko war mooy mu maslaa ak doomu taal te ñun suñu kër dañu jàngal man man waruma fóose bàcc jakartaa warul jër ndaare askan bu mu bokk kenn jëlu fandaare polygame loolu la def ci man ba ma amaat beneen vie di ko dund jaaraama polygame noonu laa dugg ci polygame waaw célébrité bi ni ma koy gérer du dara ndax man yàlla dafa def ma doon Baay Faal man man fu ma waay fanaan loo ma fanaan fa man ñoddiwuma artiste man ñoddiwuma star bari na fu ma dugg waa ah, mais xamuñu ma mais bu ñu xamee bàcc ci Jakarta c'est grâce à Polygame dañu wax dëgg bàcc Jakarta bu suwee ba ñu may bëgg di ma woo fu ne c'est grâce à Polygame maa ngi koy gérer yëguma benn succès yëguma benn succès waaw euh, en man sama ñaari côté yëpp côté aar la boo demee sama côté yaay man Alaaji Njuga Jeeng mooy sama maam Momo Jeeng maa ko mag waaye ndijaay du tuuti sama ndijaay la Alpha Jeeng aussi sama ndijaay la euh, nga ñëw sama côté papa kooku ñuy wax Baye Cheikh Seck sama rakku papa la am naa frère bi ñuy wax Mboy Diop Fary dina ma neex sama frère la am naa frère buy way saa dàgga day way di théâtre amaat naa beneen frère boo xamante ni Maria Sidi may sa sama rak sama xarit Adi Seck moom ginnaaw yàlla li ma mën ci way c'est grace moom ak Alpha kon donc man euh, su ma waree war naa war way su ma théâtre war naa théâtre noonu la bàcc ñëwee message bu may lancé jeunesse bi mooy ñu ànd ak dal bi ñu ànd ak dal ba pare nan dem uti lu ñu def parce que man li ma gën a seetlu xale yi sax léegi ñoo daa mag ñi te loolu c'est grave éducation ci biir kër gi la. éducation bi ci kër gi bu faussé rek boo génnee ci mbedd bi da ngay faussé kon donc damay ñaax même parents yi sax ñu gën a veiller ci xale yi ndax xale mooy yor réew ëllëg te gis nañ dëkk bi fan yi metti na rey yi bari na agression yi bari na euh, foqati yi bari na may ñaan jeunesse bi ñu gëm seen bopp même bun dee xëyee sax di am fukki dërëm fukki dërëm jër na mbiskit boo compté doomu mbiskit yi mën na war a war def ay vingt quatre doom loolu boo ko lekkee naan sa ndox suur nga ba pare nan gore très important nan gore parce que nit di nga am loo xam ne te doo doo ko xam nit dinga am loo xamante ni doo ko xam waaye sa mbokk baa ku la bëgg bu leenee jàkk dina xam li nga yor xanaa xamul ku wéet ber say wax nanu maandu tamit ndax sosolaate yi bari na ci dëkk bi wax nit lu mu deful bari na ci dëkk bi di ñaan sunu réew mi di senegaal politiciens yi ñoom sama benn frère sax sama benn dijaay sax woyoon na ci mu reprendre way bi yéen politiciens yi déglu leen yenn a bëgg a jiite suñum réew bu leen fitnaal askan wi ndax suñum réew mais wax ju ñaaw baaxul bàyyi leen ko wax ju ñaaw baaxul bàyyi leen ko buñ ko tegoon ci sa der bi du la neexee parti pouvoir parti opposition ak parti civil bi ñoo bokk Sénégal Sénégal jiw leen tamanko ku fi ñëw te mënoo joow ba ñoo suñu gaal loolu sama ndijaay daf ko way mu touché ma lool kon yéen politiciens yi maa ngi leen di ñaan ku ci am sa groupe ngeen di dalal xale yi di wax xale yi loo xamante ni lu déggable la loolu dama koy ñaan opposition beeg ñi nekk parti pouvoir bi nanu def jàmm nanu maye jàmm parce que jàmm kat ci lay lépp xaj bu ma sañoon wallaahi ñëppay am jàmm waaye daal ñooñu nga xam ne ñoo nekk ci kaw nanu yërëm ñi nekk ci suuf ñi nekk ci suuf it waaw sama dernier mot maa ngi gërëm. gërëmaat sax lay wax waa polygame ndax ñoom tey ginnaaw yàlla waxoon naa ko ni tey ñoom la euh, di gërëm àdduna yëpp di gërëm euh, Aïssatou Bokar boroom marché HLM di gërëm Mbisine boroom euh, Paris la France di nuyu Sénégal ñëpp di nuyu sama fans yëpp dina xam ni daal bàcc Jakarta seen bàcc jakarta la